7 minutes moo jot mi ngi Maram Ndiaye est en place moom ak ganam ñu ngi lay nuyu mi ngi di la dalal. maa lay fay Osama Monique euh, Sagna di am mbégte di ànd ak euh, yow si plateau bi ak euh, Pape Alioune ma koy nuyu. du ñuy ñi nga xam ne rek ñoom ñooy téléspectateurs yu ITV comme ni ñu koy defee altine bu ne di ànd ak ñoom seen biir rubrique politique mu doon jotaay bi nga xam ni moom la ñu fàggal way politique bi fii si biir matinal bi. Euh, mu tey ji nag euh, wax nga ko sànq si njëlbeen ñu si dalal Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang yoroon na fi jëriñ bi nga xam ne rek moom moo yoroon wàllu ndaw ñi la nekkoon na fi tamit wàllu tourisme tey moom mooy chef de cabinet bu président de la république Macky Sall donc ministre chef de cabinet ñu am mbégte monsieur le ministre di ànd ak yow si plateau bu Tok Tok Sénégal fii si ITV. waaw euh, di nuyu suñu mbokk téléspectateur yi ñu seetaan di nuyu soxna si Sagna ak Serigne bi. Mm-hmm di la nuyu yow tamit di remercier ci invitation bi. te xawna na yàgg tay alhamdoulillah ñew ñëw nañ. tout à fait alors xawna na donc ça fait maintenant un an bañu ñu démarré rek tay tey euh, la ko yalla tudd donc xam ngeen ni euh, matinal bañu ñu dooree politique bi tay mën nañ ni si lay mat un an ñu ko dooroon ak tay Moustapha Diakhaté muy le 6. Euh, subak jamu donc lañ koy fété tay ji nak ñu ci dalal Mame Mbaye Niang alors monsieur le ministre dañuy door euh, rapidement ak euh, actualité bi mhm. actualité bi nak tay ji mën nañ ni dañ koy door ak une bu quotidien l'observateur bu ñuy xamal ni mhm. dina am ap conseil des ministres extraordinaire ngir waxtaanee li nga xamné rek mo moy code électoral bi parce que mhm. dañu jëm ci ay élection locale té ku ni ay élection wara am ay coppite yu ñu wara indi ta am délai bi nga xamni warna am ngir indi coppite yoy alors d'abord est-ce que mën nañu xam lan moo war a nouveauté si code pénal euh, code euh, électoral bu ñu wara yobu assemblée nationale. waaw ah, jërëjëf euh, Magui japp na né coppite bi ci am du doon lu ump kenn parce que euh, tay di modification yi ñu bëgg andi moy mooy li ñu d'accordoon ak ci dialogue politique bi. dialogue politique bi japp na ne ñaari at a ngi nii ñetti at sax ñu ci waxtaan pour xol euh point de divergence mooy yi nga xam ne déggoowuñ ci ak opposition bi pour améliorer quand même processus électoral bi y a ay waxtaan yu bari le le le le sababoon ñu ci bari ci opposition bi teewoon nañ fa donte am na ñoo a ne tamit ñu gën a ndaw teewuñu woon parce que boo xaymaa parti politique yi nekk ci réew mi yëpp surtout ñi présent euh, ci ci ci ci ci assemblée nationale mm-hmm. pratiquement on a 95-98% des partis politiques qui quatre vingt dix huit pour cent parti politique yi ngi ci dialogue donc loolu ñu d'accord am loolu le président de la république jëloon. Euh, mbébétu ni que lépp lu d'accord foofu. après moom coppite yooyu dina ko indi. donc euh, coppite yooyu loi la. loi nak buñ koy changer euh, li ci ëpp gouvernement bi mo koy porté. gouvernement mo koy adopté ñu yónnee ko assemblée nationale. aw ci jiixi jaaxa. nani gouvernement bi dina li président wax dinañ ko def moy coppite yi ñu d'accord ak opposition bi si coppite yi bokk na si par exemple euh, suffrage universel bu war a direct. Euh, li nga xam ne moom parrainage également donc loolu dina figurer si. absolument defena ñom euh, demone nañ ñi ngi won séminaire. Mhm. Mbour. xam légui sen restitution yi génn mais liñ d'accord lepp dara changer wu ci rapport yi yi déposé président ak peut-être même bu évoluer day dem ci sens positif. Mhm. donc lolo, mom defena ni liñ d'accord. Mhm. la ñuy liñ d'accordul nak xëy na ñu ko ba beneen yoon wala ba waxtaan yi continuer mais li ñu d'accord moom mooy comme li nga wax euh, tête de liste proportionnelle bi mooy nekk maire amatul dajale yooyu defe naa bu bu bu bu proposition de loi bi jógee mhm. euh, ci gouvernement bi tey plus tard mercredi le temps que ñu koy transmettre mooy ak assemblée nit ñi dinañ xam mais gëwuma ni lu bett nit ñi dinañ ci am parce que li ñu wax ci dialogue bi rek moo ci am d'accord alors lu lu ñu wax ci dialogue bi puisque abordé nañ question boobu lee jëm ci li nga xam ne moom moo di élection locale yi mais euh, Sénégalais yi bëri lii sax ñu ko doon xaar boobu ba tey naan est-ce que. Euh, mhm. conclusion dialogue bi dinañ ko dinañ indi coppite yi laata élection yi parce que wax naa la ko sànq am na mhm. délai bu ñuy xaar mais am na beneen point bu nga xam ni. Sénégalais yi tamit bëgg nañ mu leer mooy concernant la ville de Dakar. par rapport ak élection locale yi est-ce que euh, dina am coppite par rapport ak Oumar Gueye lu mu annoncé woon ni dinañ xoolaat peut-être statut bi wala Dakar ni mu mel ni noonu la ñuy demee si élection locale yi. waaw defe naa quand même délai yi nga wax mën na justifier rafet njort gi tamit ñu parce que bu fekkee dégg naa rek ak xëy na ak dégg. c'est le porte-parole du gouvernement. Hein. non non non mm-hmm. mm-hmm. c'est-à-dire bu dañ rek mi li mais li am tax sax ñu nit ñi ni dañu que élection yi xam nañ que euh, réglementation dañ six mois. kenn du changer à moins que am consensus bu fort. d'accord mm-hmm comme li amoon ci élection yee passé mooy ñu dem ba xamné que imposer nit ki mu euh fanweeri liste day yéxal vote bi. Mhm. ñu jël ñu ñëpp ñu d'accord et puis c'était dans le sens ñu ni nit ki quand même bu dee voté léegi du jël 30 bulletins yépp mais day jël 5 rek. Mhm. donc yooyu pour éviter yu mel nonu di am ci dernier minute motax liñ d'accord lañuy def. Mhm. ville de Dakar japp na ni bu fekkone amna lu ci doon soppeeku ci dialogue bi lañ koy soppeeku. li ci mëna a soppeeku mooy day am liste ville. léegi dootul. 19 euh, euh, communes, communes mhm. après ay délégués ay ay conseillers ville conseillers les qui les nommé ville les yoy xaar d'accord commune bi conseil municipal bi ñu fal ki bi ba paré après ñu dajalo ki dem jël conseiller ki ki dem jël conseiller ki au dernier moment ñu tourner affaire yi nga jënd ki wax ak ki wax ak kële pour légui ki jiite liste bi suffrage universel lay nekk donc defe naa soppite c'est mi ngi dem ci sens positif parrainage bi d'accord ci won defe naa dindi nañ ko e, ci ci élection locale liiruma texte bi yépp mm-hmm. mais xamna naa li ñu d'accord loolu mooy am te ñi ngi koy fexee def suñ këmtalaay kàttan pour def ko pour nekk dans les délais pour bañ dugg ci six mois yi nga xam ne peut-être après dina mën a indi xel ñaar lënt lënt bu ciy am defe naa ministre Omar Gueye porte-parole du gouvernement li muy wax nit ñi dañuy jaawale région de Dakar ak département de Dakar xam léegi région de Dakar ñeenti département la parce que département bi ñu ci yokk Kër Massar avant ñett la woon Dakar Guédiawaye Pikine li ci ak waaw waa Rufisque lañ waaw ak Rufisque waa effectivement la waa Pikine waa Kër Massar mu doon cinq mhm. donc départ euh, cinq départements yooyu ku ci jàpp ku ku ku ku ku kuy dégg région de Dakar mën nga jaawale ak département de Dakar mhm. xëy nañ sax gis fii ñu ni non département de Dakar sende nañ ko en quatre arrondissements def mais loolu amul mhm. li am mooy créer nañ département de Kër bon euh, am na modification administrative yu ci wara am réimprimer wat carte yi defé na lolu autorité administrative yi dinañ jël responsabilité pour faire mu mengo mais li ci ëpp solo moy lolu mo ci bess nekkoon nga ministre da nga bëgg a nekk maire Dakar waaw candidat la maire ville de Dakar maire ville de Dakar comme Abdoulaye Diouf sa man dégguma Abdoulaye Diouf sa ni candidat lutax nga jékki rek ne gëj la gis nga jékki-jékki réapparaître ni dama bëgg maire de Dakar pourquoi ambition bobu dans un tel contexte

mais niveau de participation bi ak degré d'engagement, sont bi mo pas parce que taxaway bi bokkatul xam nga bo bokkee ci gouvernement yéna a de politique bi surtout département yi a lay wax munoo jité ndaw Sénégal di absenté wu deux jours ci plateau télé yi ak ci actualité médiatique bi parce que non seulement li ci ëpp yow lañ ko dénk mais 80% au wu problème yi département lay concerné donte solution solutions joxuñu lako ci ministère donc tu es obligé nga dem ci kanam bo fa jógee bo setlo ba man jógee ministère de la jeunesse dem ministère du tourisme peut-être feñ bi aussi wàññeeku na parce que engagement politique bi du doon ben fi image du Sénégal ngay jay fee yow yaay pointu politique gu président attaque politique yi yaay jiitu. mais sans bii parce que yëf non noonu la teudé gouvernement. fa am ñaari patch yo xamné bu dé ci walu nit ñi ñaari tank yooyu ñoo koy ministère de la jeunesse ak ministère de la femme.

yónneewuñu chroniqueur yónneewuñu benn journaliste utuñu ñetti booy ñuy wax ci suuf. daa daa am parce que maa ngi dégg mu naan xaw ma kooku man lim. Abdoulaye Diouf Sarr laa wax mais non man mairie Yoff laa dégg muy ut. am keneen kuy laaj mairie bi am keneen kuy laaj mairie bi am nañ droit dem laaj il est déjà maire de Yoff. pour empiler à ah, dette. yow nga ko bëgg a confiner. non non parce que da ngaa non non man du man maay confiner kenn. non non non c'est que affaire yi doo ko gisee noonu ku ci nekk principe de base bi mooy ku ci nekk. am nga sañ-sañu wax li nga bëgg. dangay fexe rek mu méngoo ak li leen tënk mais kii euh, euh, méegi maram mii sax bu ko neexee mu ni man maire Yoff laa bëgg a doon. mais ana say njoon da ngaa bëgg a langaamu ci coalition Benno Bokk Yaakaar wala. non C'est une base affective sa base politique. mais je suis sais pas si je man la suivre. non non mais je wax la parce que suis depuis 2012. maanaam presque je voilà tab c'est-à-dire que je suis la da nga maa je suis je suis man candidat la mairie ville de Dakar Ngor laay déparé Ngor laa dëkkee Ngor laay voté. Mhm. da nga yow li nga bëgg a dégg am nga ci droit. Mhm. loolu nga ma laaj mais léegi da nga ma laaj nee naa la man Ngor laay déparé mairie ville de Dakar la ñuy dem jëli. ndax yàgg nañ cee liggéey deux mille dix neuf après élection mhm. présidentielle yi te lañ ci commencé liggéey. d'accord. de candidature le président il a été clair. le leader de la hmm. coalition Benno te déglu ko mais kenn ku ne fum nek ni mi ngi tëb di déclarer candidature est-ce que tamit benn instant do len wolu ki nga xam mo len dité mo moo gën kenn ku ne jaar benen côté y a trop de déclaration buñ créer confusion c'est-à-dire ci démocratie lañ nek ci parti politique lañ nek ku nek am sañ-sañu bëgg li nga bëgg am droit waxo mhm. lool moy ben deux président waxul li wolu len mo mom moy tan président dafa mën investir 595. non mais il a il a dit à Kaffrine devant Abdoulaye Sow Wilane ñom ñep nee la leen déglu leen ma dama lay expliquer. pour mhm. que peut-être ñi sétane comprendre. parce que nee la wax ji dafa bari ak li ñuy waxlo nit ñi xam nga loolu mu wax yow dégg nga ko noonu man boo ma dégloo xëy na man déggewu ma ko noonu. bismillah expliquer est comprendre c'est-à-dire président mënul nekk ni day investir 595. 595 personnes. Mhm. maire de ville ak maire commune parti politique lañ am nekk ci coalition. Bloc élection locale élection locale c'est-à-dire faluñu président faluñu keneen bu ñu ñëwee Ngor dañuy xool waa Ngor yi ak waa Almadies dañuy xool nan lañ mel ak Mambay ak Mambay lan la leen mën a nan la leen mën a jiite ak lan la leen di wax. léegi mm-hmm. ci base yooyu la parti ak coalition yi di investir ci base yooyu. Mm-hmm. mën na jot ay propositions lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def peut-être il valide une liste mais propositions yi du moom. loolu mooy bi njëkk beneen bi ci topp mooy que moom li mu ma bëgg a jiiñ nii dafa am ñuy def. lan laa bëgg a jiiñ non lim ma wax nii quoi bon. comme daan ni non est-ce que dama bëgg a langaamu ci coalition bi. Mm. c'est-à-dire ku xaar ñi nekk ci pale bi jël seen téléphone woo la naan la noo ay ngor président nee na Mame Mbaye mooy suñu candidat da ngay nax sa bopp yooyu ça ne marche plus parce que président waxul dara moom bu mënta génn weddi ñun ñi nekk ci wetam aussi toog ci wetam xam nañ li muy wax ak li mu dul wax. c'est pas parce que Mambay dafa jël téléphone au palais bi 804 numéro bi wall la le la woy maay Mambay le mais chef cabinet président président de na nga génn ci élection yi euh, ngor investi mënoo fa xëccoo kii lañ c'est pas vrai mm. débat bi eggagul foofu ku mu neex nga dajale ku wóolu sa bopp nga fexe postuler mm-hmm. c'est tout et puis on n'est pas obligé ñu déggoo fépp

déedéet. ah déet soo ko kay pour am légitimité foo nga wax. am nga non non defal ndànk déedéet defal ndànk c'est-à-dire. Mhm. aussi nit qui c'est pas parce que da ngaa nekk fii rek da ngay utiliser moi je suis contre ay trafic d'influence ak ay trafic de position Bon, boo seetloo li ngay gis président télé sax di ma gis bu manifestation boo xam ne maa ko organisé doo ma fa gis parce que dama contre principe boobu dama gëm ni que nit lu am daf ciy def coonoom da koy xeex. cest man duma jël doole jàmbur di ko xeexee li ma yàlla jox ak ak ak ak sutura si yàlla la ñuy ànd dem uti li ñu uti donc même bu ma ci amee ndigal duma ko wax benn beneen bi mooy jàpp naa ni quand même naa ci yëf yi nag pour que di di def li may def nii rek ñëw toog ci télé di wax nii non ça quand même on peut pas le faire nee la Sénégal lañ créer dans un contexte y particulier que cela un an neuf mois Nous avons plus de 25 000 personnes les gens parlaient de conflit entre la jeunesse sénégalaise avec les femmes sénégalaises avec le président perte une région de perte département de Dakar je pense que nous rassemblement nous ñu def du mouvement bob amatul keneen ku ko fi def. Dakar dul président de la République non non xaaral. lu woon du c'est-à-dire. le champ politique s'est recomposé. Euh, non non non et la nature a horreur du vide. loolu la ñuy wax dans le champ politique. nous mais conjugué ces say victoires yëpp au passé monsieur le ministre. xam xam nga yow da ngay analyser conjuguer wu ma au passé. li may wax parce que li ngay wax naan en 2012 on est en 2021. non waxuma 2012 2019 là wax. 2019 on est en 2021. avant élection mais. 2000 kon si mouvement boobu ngay sukkandiku ba non non xaaral rek ma wax la. Sénégal 2035 c'est-à-dire sukkandiwuñu ko ci mais ci parti la bokk ci coalition la bokk ci limay ñëk njëkk a sukkandiku mooy ci doole bép bu ma am ak bép nit ku fi yaakar appareil politique rek pour gagner élection politique yi buñ naxanté il représente pas 10% de la population amna ño xamni sénégalais ño xamni tok sétane li wax ci télé bi déglu débat bi bu ngoon jotee ñu dem jël seen position donc sukkandikuwuma ci ay force mais tamit sukkandikuwuma ci ñi melni ni yow nga xamni dañuy tok li ngeen ni gis ngeen ni xol la ngeen ni xalaat non moi c'est quelque lu may man te mënta yam yam yow ci li ngay xalat contexte bi bokul mais amna ño xamni ya ne yaa ngi leen jugé Thaï aujourd'hui non non non non non xaar ma terminer bu ma terminer di nga xam amna ño xamni ya ne jël position tay ak ñom par rapport ak ay élections yu am 2019 moy dernier xayma bi fi am présidentiel bob donc c'est pas empirique man li ma lay wax ni ci moment bobu la contexte bi est-ce que évolué na naturellement. Oui. Parce que c'est dynamique. Oui. C'est pas statique. Mm -hmm. C'est dynamique hein? Amna lu fi xew am lu fi xewaat dina am luy xew gannaaw suba dina xewat, amna leneen luy xewat. da ngay wóolu li ngay def ginnaaw bu fekkee ni que yow gëm nga yàlla après nga doxal. d'accord alors mais monsieur le ministre le président de euh, comme ni ñu ko waxee rek am na ay candidats yoo nga xam ne wala boog ñuy jàpp ni. Mhm. seen bëgg-bëgg yor ndakaaru la musa doon. budul Abdoulaye Diouf Sarr di Amadou Ba par exemple le président de la république Macky Sall njiital coalition la coalition Bok, euh, proposer leen Abdoulaye comme candidat est ce que vous, Mambay membres vous savez nga depuis plus d'un an vous êtes prêts prêt pour accepter derrière Abdoulaye Diouf Sarr. mais c'est vrai les journaliste je man dama dama rationnel c'est-à-dire j'anticipe pas sur des positions. Non, non, non. Monsieur le ministre, la question est claire. Vous ne pas oui ou non, parce que c'est fermé. Je, donne une réponse claire. C'est-à-dire, moi, ça ne me sert à rien sur le plan stratégique de répondre à une question. Je ne le, pas, la décision va se, peut se prendre d'ici trois mois. Mais c'est possible, Non, c'est une possibilité. Mais, vous faites que des mathématiques, dans l'intervalle ouvert là, ouvert de moins l'infini à plus l'infini. Mhm mais résultat exact mun na am. résultat mais la question elle est simple. la réponse elle est tellement simple est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr. candidat ou Beno Bokk Yaakaar Mame Mbaye Niang préparé depuis un an. dina accepter. mais eggaguñ ci loolu oui wala non. non eggaguñ ci loolu pour juger position Abdoulaye Diouf Sarr ak man ñu investir et ak position Amadou Ba ak ndax ñu investir ko damay fàttali benn contexte Moi, législative il passé. Mhm. même si après sama serigne bi man na mën na ma wax ne que dafa yàgg mhm. législative bi passé spéculation yëpp kan la waxoon ne que la investir donc nañ sax xëy suba teel ñu ni ay jour ay benn journal def à la une may Maïmouna Ndoye Seck la ñu investir tête de liste est-ce que daf ñu tee après mécanisme yi déployé wu pour ñu dem campagne yi mhm. pourtant pronostic yi du woon yooyu ngeen wax ni yëpp Amadou Ba kenn xalaatul woon ni mooy jiite liste bi ça faut pronostic yëpp. non xaar dama lay wax man defuma pronostic. non non non dama lay wax est-ce que parce que question bi. mooy ay probabilité de la mathématique aussi hein? Hein? c'est de la mathématique comme l'intervalle. donc hein? ak la possibilité. donc c'est des possibilités. waaw mais sur la base de. xam nga il faut procéder li ñuy wax raisonnement par récurrence li nga wax ni jox na la cas bu am 2017 bo xam ni ki ñepp pronostiqué woon du moom. man ak Diouf Sarr ak ñëpp ñu dem topp ci ginnaaw campagne xaaral rek ñu gagné lii di am nii mais même mécanisme yi créé loolu même mécanisme yooyu mooy déployé waat ba problème du am man sa ma la question est simple parce que wiiri wiiri nga ma mbay ba. non wiiri wiiri wu naa la dama la ah, mhm. keneen ku dul yow. Ah. est-ce que prêt nga yow ma mbay parce que wax nañ ko yaa ko waxal sa bopp évolution am na. est-ce que tey jii prêt nga pour nekk si ginnaaw keneen. mais parce que mais moom laa la wax rapidement pour da nga bëgg ñu jàll. oui wala non parce que liy am suba. Hmm. maîtriser wu ma paramètres yëpp et décision boobu bu ma koy jël c'est en fonction de paramètres yi may. alors xam nga sànq sa biir wax ba ngay tontu Pape Amadou Sarr wax nga ko nga ni ba nga nekkee jëriñ biir wàllu ndaw ñi. tu étais au devant de la scène hmm. tourisme. nga décalé waaw tey nga dugg biir cabinet président de la république parce que kenn déggatu la alors maanaam escalier boobu noonu nga def est ce que tey ji tamit euh, euh, yaa ngee confiance président de la république de tey. parce que mu tax ma wax moy daf la jëloon jox la politique bi nga xam mo gën am solo ci réew mi. waaw muy wàllu ndaw ñi. Mm-hmm. jëlee la fa duggal la fi nga xam ne tourisme la kenn déggatu la woon ya ko waxal sa bop mm-hmm. wala tout lañ lay dégg tay nga dugg ci biir cabinet bi benn yoon ngay dé génn si mois bi ci presse bi déggatuñ ko est-ce que loolu du manque de confiance teg la fi nga xam ne mënut a ñàkk la pour sa mm-hmm. engagement si wetam depuis le début. non bon c'est-à-dire question la boo xam ne peut-être même je me sentirais mal à l'aise di ci répondre parce que ku xamul mooy wax sur la base de quoi bëgg sénégalais xam rek. ku sénégalais bu dañu bëgg xam. am suivre. Mhm. am nga man ma confiance am du xaar mu ma jël bagage dem tempérament c'est-à-dire bu ma je sàkkoon que day sama confiance ak ay maay takk samay bagage dem parce que ak at yi ma engagement man loolu laa jàng ci moom dañuy ànd ñu ànd buñ àndul du ñu naxante buñ naree naxante ku nekk dem combat combat bi ma gëm laay xeex combat bi ma gëmul du ko xeex mais damay obéir ci règle démocratie li ñu ñi décider même bu ma d'accordul damay toog noppi kon d'accord aussi fu mu la dugal na la ah, ah déedéet bu ma d'accordul woon ba mu ma ko joxee laa koy delloo proposé na ma ay post ma ne ko non man je pense ne fii laa que nit duñ la may lepp nga jël lépp. mënuñu ma nommer ministre de la jeunesse Jëlé ma fa bañ ma fay jëlé ma d'accord ni que man sonn naa c'est-à-dire nit ki da ngay xam fi nga yam. Mëno nek 4 ans ministre de la jeunesse après d'autres dootuma jeune quand même. bàyyi fa coow lu reuy aussi. ba coow lu comme coow la product par exemple. jusqu'à présent sénégalais yi amuñ ci dara lu leer.

mais il y a un ministre le programme programme bi nga ministère donc il a sa loxo la université un ministre mais ah, bien sûr bien sûr. mais bien sûr Bien sûr, la ministre. ministre de l'enseignement supérieur. non. ministre de tutelle ministre de non non bi comprendre leen. que c'est à dire quand même. amna wax yo xamni meuna mën naa nangu ñu wax ci mbedd mi mais amna wax yo xamni ne mënu ma nangu ñu wax fini kon c'est-à-dire moy lan mhm. da nga ni ministre bi mu ñëwee dang ko ci interpeller bi ko ci interpeller mom mo directeur coût c'est-à-dire mo administrateur crédit ak gestionnaire bi mhm. man musuma nek administrateur crédit Prodac musuñu ma nommé coordinateur kon ministre de l'enseignement supérieur lu mënta xew ci université mom bokku ci c'est-à-dire c'est-à-dire euh, euh, à ce niveau de responsabilité vous ne mënul pas départir responsabilité à culpabilité c'est-à-dire texte vous mënul wax ni que yow yaay administrateur de crédit un ordonnateur de dépenses. c'est-à-dire buñ si auditer projet bi yow duñ la t'appelle pas même à titre de témoin ma ñëw ba quand même ay journalistes qui ont préparé nañ bëgg inculpé inculper daan ni man. droit de regard sur lu doon en termes de management. en termes de management aw ma ci benn regard. Ah. parce que dafa am coordinateur, am conseil d'administration. C'est sous ma tutelle je rencontre mais un content de ton ministre de votre département ministériel. comme comme le coude, comme le port. dépend du ministre des transports maritimes est-ce que s'il y a un scandale au port dañuy woo le ministre des transports y a un, surtout un scandale financier. Amoul. mais c'est-à-dire c'est-à-dire de temps en temps il faut chercher. il faut chercher xam nga lu parce que li ngay wax nii journaliste yu bari gagné naa leen ci procès parce que les gens ont pensé ni que moi j'étais coordinateur du product, je n'ai jamais product ni ñi ko mës a Jean-Pierre Senghor le Mamina d'affaires ak ki fa nekk je n'ai jamais été coordinateur du product. C'est parce que de par ma nature, j'aime bien porter un projet et je croyais à ce projet. J'étais le ministre. Naturellement, comme il y a un ministre pour le port, il y a un ministre pour les aéroports. Parce que tout à l'heure, il y a un damon, le président, nous a dit Ibidagbi. Mais bon, amé tchou, vous avez dit que c'est un Non, non, amé tchou, créé, dougou, je dougou, un dougou, mais encore une fois, yow xamoo woon ne que du ma aw apparemment ni nga réagir xamoo woon ne que du ma ordinateur. musuma jiite da ngay gis sax ku ni le gestionnaire du product. je n'ai jamais été le gestionnaire mais xam naa ne monsieur le ministre. su fekkee da nga yor benn ministère. Mm. Mm. benn programme mm. nekk sa biir ministère. xam naa ni au moins lu gën a ndaw mooy di nga si am droit de regard xanaa doon ma nag jamono ji Pape Malick Ndour lu ko neex lay def. te par exemple benn Fatimata Tall du wax dara si liggéey. non non c'est que boo waxee noonu amoo droit waxee noonu encore une fois nangu naa sax étudiant waxee noonu yow eh, journaliste bu mag nga non xaaral xaaral xaaral journaliste bu mag c'est-à-dire boo dee invité kenn da ngay xam quand même architecture administration architecture administration ministre amul pouvoir ci directeur général preuve bi mooy décret moo ko nommé décret moo la nommé aux yeux de la loi le coordinateur est responsable intermédiaire il y a na benn trait d'union bu entre structure bi ak ministère bi conseil d'administration le wala conseil de surveillance où tous les ministères sont représentés, tel que c'est conçu ici, dans le fonctionnement de notre État, ministre de tutelle mënta que ordonnateur de dépenses, moule vision ci Khalis. parce que l'État du Sénégal s'est organisé de telle sorte que l'argent est centralisé par le ministre des Finances Il da ngay am tutelle technique qui est une tutelle financière est-ce que vous comprenez c'est-à-dire bari de l'Union ñu dañ ko xamul léegi am ci regard. waaw mais depuis am nga ci. mais am naa ci regard parce que man am nga une responsabilité. parce que je fais Prodac di fonctionner parce que suñu amoon ay résultats positifs defal ndànk defal ndànk defal ndànk. cest à leen waxee noonu parce que xam nga lu tax noo waxee noonu. Hmm. parce que ni ma ci amee responsabilité noonu la ci ministre de finance amee responsabilité moom mi xaalis bi man ma yor volet ah, technique bi non. Oui, à des échelles très différentes. parce que pourcentage, parce que pourcentage de responsabilité, ça bon. Mais moi, j'assume des responsabilités. Ah, ah moi, j'assume que si je suis wolo denk ma bu doxulé duma daw duma ni directeur bi la duma ni li et je réponds parce que j'ai la conscience tranquille et le temps m'a donné raison. Comment le temps m'a donné raison. Comment Dans un premier temps, les 29 milliards ont disparu. Si les 29, ñi mako donne accuser ci bopam ñoy tok ci plateau yi nan xaliss ba fi mom Comment est-ce que, comment est-ce que le directeur technique de ITV peut détourner l'argent ITV Qui ki fiy jënd micro yi du a yow boo jógee da nga un papier laa soxla ak est-ce que processus de papier bi ak bic bi da nga ci le comptable bi sàgganee yow ba nga responsable en fait on est dans ça c'est-à-dire on est dans des rumeurs dans des procédures de de de de de de de de diaboliser c'est pour ça quoi tu le tribunal après mon non mais xaw ma ni man dama defoon des ont écrit des livres Déjà, on parlait avec certitude sur des choses qui n'existent pas qui ah. n'existent que dans le période bobu kon mais parce que mon nani moment moom la fu ñu ce sa ça sax dañ koy dàqantele bon en fait ni nga koy dundé moins, ni koy dundé moins et que ça participe à construire l'homme à te doter d'une carapace et à faire face à tes adversaires c'est ça. Interne ou externe ben, Interne ou externe pas des adversaires, il y en a partout. Hein. Quand on a une fille, c'est une bière télé, il y a une Est-ce que cas spécifique, parce que y a un solo, ça nous demande tout le ministère des Finances. Non, ça ne sert à rien de revenir sur des choses. Je sais ce que je dis. Et pour pendant deux ans, trois ans, parce qu'Amoul, on ne peut pas t'amener un papier. C'est-à-dire, si le président mhm. décidait d'envoyer l'IGE, même pour qu'on ait FBI nous dem nous contrôler on ne m'auditionne pas on ne m'interpelle pas et je ne suis pas responsable. d'accord alors euh, Ousmane dañuy xam naa ni li ñu dese si ay ponk ak li ñu dese si ay temps bëri na loolu nañ ko bàyyi sénégalais yi. Mm-hmm. dégg nañ les euh, leeral yi nga xam ni Mame Mbaye Niang indi na ko si li nga xam ne moom mooy wàllu Prodac bi ak li nga xam ni moom mooy élection yi nga xam mm-hmm. moom la ñu dëgmal. mais monsieur le dañuy dugg si beneen ponk d' actualité sànq bëgguma la woon sax dak mooy ba ngay wax Pape Alioune Sarr di natab di la wax 2019 ak lu xew. jamono ji évolution amna suñ nane évolution xel day dem ci événement mois de mars par exemple mhm. sénégalais yi bëri génn mhm. mais fu may dooree waxtaan bi mooy modification yi nga xam dañ ko indi si code pénal bi ak code de procédure pénale bi d'abord la première question monsieur le ministre gis nañ dafa doon loi bi nga xam ni loi à polémique la ba tey sénégalais yi bëri gis nañ sax ministre dem assemblée nationale ba génn ñëwaat di yónneewaat communiqué pour leeral askan wi alors pourquoi euh, euh, coppite yi nii jur coow sa gis-gis yow bon ça que je mooy moi que parce que dafa am ñenn ñu qui ci qu'il faut identifier hein, moi, groupe Sonko activiste ont voulu amorcer ou allumer une autre dynamique c'est tout sans pour autant comprendre la la preuve Moi, même s'ils disent que procédure d'urgence la hmm. dina def une semaine assemblée une commission commission c'est ni i moroomu député ñooy toog ay experts nous ñu am droit jël kayit yi yóbbu sollicité ay experts pour ñu wax leen. Cheikh Bamba Dièye trois jours la wax bu ñu ko invité moo la jiitu woon lundi bi trois jours la wax. xaaral rek moom la defal defal non je précise tout simplement moom. dafay toog trois jours trois jours la jot la ko jot ci la ko jot ci lan. ci lañ jot trois jours lañ jot commission mais defal ndànk moom mooy li ma la wax. c'est-à-dire en fait boo jëlul jotu déglu ma nee naa la procédure d'urgence. bu ñu koy voté dañuy yónnee loi bi mu dem le président Niasco, ko qui est qui de président conférence de présidents nous décidons de loi bi yóbbu commission des lois mais naa la il day a une semaine pour que assemblée rek loi bi bu ko euh, président yi validé conférence président yi dugg na ci casier bon demain ding fait ci jot bu chaque jour nga ding jot. mais pourquoi procédure à une loi aussi importante. non non euh, dafa dafa importante parce que ku mel ni yow dafa déglu ñële ni que dafa importante. loi dafa importante parce que non xaaral xaaral xaaral ma wax la xaaral ma wax parce que dañu attiré parce que dañu parce que la veille non xaaral ma wax la dañ lay bàyyi nga développé carrément mais tamit mënuñoo accepté. non non nga jàpp nga li nga non mooy li ma la wax. c'est-à-dire boo ma dégluwulee boo ma dégluwulee. doo comprendre li may wax. dama ne dafay importante parce que dañu attirer sa attention yow ci importance bi la veille dama lay expliquer mécanisme de conditionnement yi nan lay demee c'est-à-dire am na ay nit yu toog ba deux heures du matin nous wolen leen yéen ñëpp conférence de presse procédure d'urgence ñoom tamit non suba une voix. Euh, le journaliste a le rôle d'informer. mais mais absolument mais journaliste. Bah, c'est-à-dire moi je dama ci xam. scoop rek. ah non mais c'est normal. c'est c'est votre travail. mais pour sañoon journaliste journaliste bu sañoon. Mhm. yaay a traité information. ça on n'en disconvient pas. c'est normal mais dama ni la. Mhm. dama lay expliquer processus nous avons koy conditionné trois jours nous avons benn jour ci guddi nous woo ñëpp amate ñëpp suba loi La majorité bi avons na ñoo jour où la loi bi ku parce que le jour où le gouvernement bi envoyé suivre ma sax euh, communiqué conseil des ministres parce que c'est dans l'ordre naturel des choses qu'un gouvernement ratifie mmh. et envoie des lois avec le recul on voit que nous, ils n'ont ils n'ont pas fait le travail Pour ñu ko teeloon a gis duñ nekk ba veille bi ku ci commission de le ko xam li ngay wax di deux jours pour expliquer avec le recul on constate que loi a amoon depuis 2017 là. de de non 2007. non 2007 d'abord, dans un premier temps. 2007 d'abord. 2007 2016. 2007 2016 donc évolutif. Hmm. avec le recul on constate que référence yi ñuy wax ni que ay loi liberticide la quand on parle de loi liberticide on fait allusion à des pays qui sont démocratiques les États-Unis avec le recul on constate que recommandation wu sax G20 est-ce que tu non si. mais monsieur le ministre Ça, loolu dinaa de parce que Amna a ay. recommandations ça ne peut pas être non mais. mais la question de Pape Alun Sarr depuis le début c'est clair. Là, Pape Alioune Pape Alioune Sarr. Uh-huh. sa question elle est claire. pourquoi.

Mon structure pratiquement bii décidé ci ci ci ci financement ci aduna bi bi nan lay circuler banque mondiale que non parce que wax nañ wax nañ non également mais da comprendre c'est-à-dire à la fin résumer. c'est-à-dire déjà on pensait que profiter sont trompés de bonne foi ou de mauvaise foi moi je fais partie des gens qui ont compris Si xoolee ñi ciy wax ñëpp xooluñu une loi ne peut pas être liberticide vous faites ni que àdduna bi yépp doxal nañ ko ay yenn texte ak yenn contexte qui mooy changé amu ci kenn loi bu liberticide opposition bi ba mu daan am loi bi dem ci euh, représentation diplomatique yi out pression diplomatique out pression internationale kenn ñemewu ko ci def parce que li ñuy wax lépp dara amu ci. nga ni loi bu liberticide amul. amu président Abdoulaye Wade projet de loi c'est liberté mais attends c'est les principes c'est les principes c'est les principes non non non ah, non Pape Le principe de démocratie changé c'est-à-dire principe le principe, nga la majorité des 51%, 25%, d'autres mais mais attends mais mais loi principe ah mais c'est un projet de loi non non mais mais, que... non code pénal code pénal à tout moment code pénal en fonction de sa société ni non pour euh, euh, du du euh, c'est-à-dire ku la a ku code bi la assemblée lañ modifier principe fonctionnement ou république mais c'est une loi waaw mais non mais même si c'est une loi. Une mais loi loi yi ko étagé. non non non mais c'est que le principe il démocratique yi ñuy défendre c'est-à-dire loi mënta que liberticide c'est-à-dire àddina bi yëpp décider. Adopter loi pour liberticide mais CEDEAO des décision la fi rendre au Khalifa Sall ñu. mais parce que impact bi 20 am impact bi 20 am. waaw CEDEAO amu ko. ci doxalinu nous bi. non non c'est-à-dire. ci doxalinu nous bi. impact bi 20 am. CEDEAO amu mais c'est parce que tout simplement comme par exemple sa taxawaay bii nga am. Uh-huh. su ko ñun réew Afrique yëpp amee. Uh-huh. duñ mus a am doole boobu noonu. CEDEAO ngeen koy néewal doole saa su nekk. Ah, néewal doole mais buñ ko ci dem bokk. di eh, ratifier loi yi e looloo métti observateur ñaari politiciens ñetti politiciens yoo xam ne ils le monde non non mais attends quand même dañoo dem ñoo ñoom CEDEAO yóbbu ko CEDEAO si yoon comme nañu ko defee ñu ni leen par exemple loi bu jëm si wàllu signature yi parrainage yi day baaxul mais mi ngi ci processus bi non non non c'est que c'est-à-dire non waxuma c'est pas contraignant dama bu ma waxee ni que c'est pas non non contraignant bu ma waxul bu ma waxee contraignant bi lapsus la mais li ma bëgg a wax de sens. waaw peut-être ça ça ça peut arriver. li tax malay wax. c'est-à-dire dafa am processus. c'est-à-dire mëno chanter processus bi sur la base mëno yé réew mi yëpp ni loi liberticide la or que adina bi yëpp def nañ ko. mëno yé réew mi yëpp daan ni loi bi daf ñuy taxé de terroriste fekk adina bi yëpp. da ngaa jàppoon lu xew ci mois de mars bi terrorisme la mois de mars émeute di am da nga japp ni terrorisme la. man waaw. da nga japp jàpp waaw. askan bi génn. non du askan parce que ñi ma am na lu ma ci xam xëy am na lu ma waaw peut-être loolu nga may njëkk a laaj cest dire parce que man xam naa ni am na ci ci ci li amoon mois de mars am na quatorze personnes yu ci dee cinq personnes ñoo ci dee yoo xam ni laale na police li ci des lépp ay meurtre la man xam naa loolu donc xam ne c'est-à-dire parce que sur quatorze kan waaw kan moo leen rey loolu lu ñu war a leeral la. léegi kon Sénégal daal dina ko leeral. kon mois de mars dans mois de mars émeutes yi am du ñu ñëpp d' nañ ni quatorze personnes ñoo ci dee. léegi ay la man xam naa ni mais mais attends dafa kan moo la non da ngeen a annoncé une enquête enquête bi nga xam ne ba tey pousse le passe. enquête bi duñ ko duñ du puus du paas en fonction de yow humeur yi am wala yi koy am. day enquête mais day continuer day enquête bi day évoluer ah, non defal ndank ban non defal ndank, c'est-à-dire lo wax mën na am mais processus quand même dañuy nangu ni que dafa am c'est-à-dire mooy li may wax ci passation marché pour peut-être peut tu vas me dire que tu vas sauter du coq à l'âne non non non c'est-à-dire bu gaawee mhm. bu yeexee ñu ne xamuñu dara bu gaawee ñu ni gré à gré lañ def sàcc nañ cest il faut trouver benn juste mesure bàyyi processus yi dem enquête bi ay sénégalais comme yow yuy def seen liggéey comme yow di fexe def seen maximum comme yow mm-hmm. ñoo yor processus bi mais ñi ngi def. alors tey enquête mois de mars yi Pape Alioune Sow wax nee nga revendication sociale. oui nit ñi amuñu liggéey jeune maanaam jeune non non mais xam nga man d' accord uma xam nga man mais c' est le président qui l' a dit man d' accord uma man d' accord uma. c' est le président qui l' a dit ça. li nga li muy wax nii c' est le président moo wax la ni comprendre naa leen xam na ni liggéey ndaw ñi la. yow léegi nga yow nga yóbbu ko terrorisme maintenant. non daf ni ma li am. waaw est ce que dama koy assimiler terrorisme ma ne ko waaw parce que quatorze personnes dee nañ ci. sur les 14, amna 5 moments la gemni mo am ni que ño dé ci altercation ak police. Amna yenen 9 yo xamni lolu rayou len. Mais lolu man C'est une lecture personnelle, c'est pas une lecture personnelle. C'est une commission indépendante. Mais négal ko commission bi am

dañuy comparer Il ne comparer faut pas accepter de jouer le jeu de certains vouloir comparer deux équations qui ne sont pas de la même dimension mathématiquement l'homme mënta 2000, 2000, 2000 2012, 23 juin 2011, les principes principe défendre Mouler, li am défendre ça défend autre chose mais viol lay défendre faites que M2D vous faites que FRN c'est front national mais euh, procès en cours voilà wax. kon état bi dafa dafa dafa dafa ay loxo. lan la procès viol da nga ni ma allusion comparer 23 juin ak li de mars man ne c'est pas la même chose li amone 23 juin ay principe démocratique les défendre Li am ni organisation le pour défendre quelqu'un qui a été accusé de viol et qui bande sa propre conviction à 95 c'est vrai man gëm man la wax man ah. gëm naa li ndaw avec des preuves bah mais man la wax non damay laaj ba xam avec des preuves là wala da ngay toog c'est c'est c'est entre pouvoir opposant maanaam pouvoir non non defal ndànk ñoom bi ñu ni que li complot la dang leen laaj ay preuves du ko fi toog laa naa ko am est dañ la jox ay preuve. yow fu mu nekk nii sa bos moom man li may wax c'est pas parce que nit ñaa ngi def bul. àttee foofu yow li ngay def moo amoon solo jamono ji léegi ba nga ma dalee dégg ba léegi. Mhm. mosoo man dégg ma wax dara ñu weddi ma. man toog naa ma ne leen ñii kii liñ koy jiiñ moo ko def weddi wuñu ma ne la kii moom complot bi mu ñuy moom moo ko def. je l'ai dit est-ce léegi dossier bi.

wala di wax ci lu dossier judiciaire. mais est-ce que am nga si attente alors dafaale dossier judiciaire sama xam nga sama attente. que lañ récemment am kenn ku ñu viol. il s'est dem il s'est il s'est il s'est donné à cœur di jéem indi ay preuves kenn faale ko dañ ko dakk mandat dañ ko mandat de pour ñëpp ñoo yab a yab loi bi koy il a voté à l'Assemblée moom Ousmane Sonko il a voté cette loi là à l'Assemblée donc mandat de dépôt nga doon xaar naan mooy dañ ma complot dañ ma kii c'est vrai y a pas eu de répondant mandat mandat de dépôt nga doon xaar wala moom ngay xaar si loolu mais du loi bi lan la wax ku def fii ñi fi def loolu lépp boo fi dix ñu jiiñ viol nga def ak nga bañ a def yépp li ñuy njëkk a def mooy mandat de dépôt la hmm. est-ce que loolu jaar na yoon wala jaarul yoon for société civile ak féministe ñu koy défendre peut-être loolu mën nañ mais buñ ko dee appliquer c'est pas normal. Il y a pas eu de répondant. Il doit pas Il y a pas eu de répondant dans la ragal ni communication wala ni nekk ci pouvoir da am lu etc lu hésiter wala ni ragal. Il y a pas eu de répondant bah, moi Il euh, y a pas eu de répondant non il y a pas eu de répondant politique. par rapport à ce pouvoir fi nga bon bon je considère ne que mars bi activité mars yi li sax mu am. mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de répondant politique. foo nekkoon mais maa ngi fi. parce que si nga mais pour lan mais xeex. Il n'y répondant. mais y' avait pas de répondant parce que mhm. parce que parce que yow bois, wax. <laughs> y' avait pas de répondant parce que xex dans un régime. Mhm. gouvernement moo koy njëkk porté. man lima trouvé anormal cest à dire le gars il ne peut pas se réunir trois fois de suite chaque guddi mu toog dajale ay sitam journalistes yi daw ñëw taxaw mu naan ay graisse yu yeew ak ay affaires yooyu et les gens ne répondent pas mu naan ay complot la di tudd ay président la ñëpp ni teg di ko seetaan ça c'est pas normal. lan moo koy waral souvent. parce que dafa parce que tout simplement lu bees seen biir gouvernement bi. li ngeen di ba parce que lan moo ko waral gouvernement yu antérieur yi. Mhm. problème yu xam nga problème mu Karim moo gënoon compliqué ay problème Ousmane Sonko problème mais les gens sont impliqués, ils gèrent, ils donnent des explications et ils apportent des réponses politiques. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ça, il faut le reconnaître, c'est que vous n'avez Mais pourtant, monsieur le ministre, ci événement y nga def ce retour médiatique. Pas parce que de déggoo ma man yow pour andi répondant pourtant, moo tax n'est pas pourtant. pas tenu eh, par la solidarité gouvernementale. Non, non, non, Ben affaire la da nga may déglu bëgg yow da nga émission neex ba dama lay jox droit wala daan ma déglu. c'est-à-dire ci l'as def sama parce que man toog naa ci télé man len luy ëpp tuuru parce que li buñ ko sété régime bi yëpp lay créer ay problème alors on parle mais là dans ce cas amoutou responsabilité kan moy jiitu kan moy ñëw on vient et on se d'accord léegi ça tape parce que quand même man bokk naa ci ñi ñi xeex pour régime bi am je vais pas laisser des choses yo xamné moi, je me retrouve dedans, être s'effondrer parce que tout simplement, quelqu'un est en train de rêver ou de raconter. a des retours médiatiques. Absolument, pas retour médiatique seulement, retour politique. Retour politique. Alors, ce retour politique, c'est moo jur sa candidature nekk si élection non non juru. non non bul non, Non, romb non non c'est-à-dire doo non. c'est sama retour politique mhm. jurul sama. nee la j'ai répondu j'ai dit. Mhm. clairement depuis 2019, après élection présidentielle man. Il lañ décidé. L'air na plus d'un an alors d'accord alors deux ans Ousmane Sonko ah. Ousmane Sonko de yëkkat ay accusations euh, ba Bataille su loi bi parce que ginnaaw génn bu ñu defoon euh, aljuma def na conférence de presse bu njëkk moi, mooy euh, ni modification indi ben cible la am Moi le parti Pastef mon partem dans le sax bay jël ay tuuma ni loi bi nga xam ne moom ngeen assemblée nationale. Euh, mbiru Tony Blair là. alors une réponse ngay indi puisque yow a ngi ci cabinet donc xam nga les tenants et les aboutissants une réponse ngay indi par rapport à ces accusations non comme ces accusations antérieures Ousmane Sonko mësta wax lu am depuis que vous le connaissez tous les sujets qu'il a évoqués n'ont pas eu d'aboutissement parce qu'il il parle de xamul dara ci li dara dara dara dara loi liberticide la de a il s'est rendu compte que Rayna Bopam mu dellu naan ay poste télécommande lui vous n'avez pas remarqué ni qu'à à chaque fois mu wax Jean-Luc Mélenchon def benn tweet. wala seetlu leen lan moy lien bi. Fait l'en ko. non dama la xëy laaj mais déedéet. da mo. ma Mais damal nga laaj ko bok toogee ak mom gané ko pourquoi. Suñ amee occasion bi mais comme yow nañu toogal. waaw mais mais attends moom moo ma tontu la. Néna ñun dañuy liggéey ak tuba bi dañuy def parce que c'est des gens qui n'ont rien compris et ou qui viennent de comprendre et qui veulent rattraper une situation Khamoul dara ci wax loi bi dañ ko yee mu tëb daw parce que phobie ou ni que il va être emprisonné on ne cherche pas Pastef mais il faut que justice am ci mom ak diggante Adji Sarr masuma ko dégg mu ni man defuma vous l'avez déjà entendu dire que j'ai pas violé la femme vous l'avez déjà entendu dire que je ne connais pas la femme vous l'avez déjà entendu dire que des fa vous l'avez déjà entendu démentir que jour la dame portait plainte. Euh, gendarmerie, le gendarme l'a appelé et a envoyé des SMS avec lui. Avant sa convocation, il parlait au gendarme, au, capitaine qui a été radié. Vous l'avez déjà entendu, c'est ça un complot. C'est-à-dire, dans une décide de allez chercher dans ça. Cherchez ceux qui ont été tués. Cherchez, mini manifestation, il peut paraître. Cherchez les enregistrements et les témoignages des familles qui ont dit publiquement que nous avons proposé des choses pour faire des choses pénales. Cherchez dans ça, vous allez trouver la vérité. Mais n'acceptez pas à faire flou. Qui parle actuellement Parce que tous les gens qui sont dotés de raison et de morale ont quitté. Ils ont quitté. Mais c'est ça. Mais c'est Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais les gens qui sont au devant di wax mais vérifier ngeen xol ñooñu. Ah, ñooñu ngeen sont nous ñooñu ngeen wax ñu ko ñoy alternative ñooñu wax les mêmes figures les mêmes figures télé bi wax. attention yow man attention wu téléspectateur wax. nañ dem wax la ak naka la nga dem bu da bëgg vérifier vérifier ndaw plainte vérifier le complot que wax ñan def vérifier ñan ñoo ray ñooñu vérifier ñi ñi ñu seen doom ñu dem di leen fay xaalis pour ñu wax que vérifier l'eau. lu bari justice le média. mais mais justice lu c'est parce que si je suis ci ce plateau toi tu préfères me parler de cette histoire là que de me parler d'autre chose. moi je suis tenu politiquement de répondre pour éviter les amone amat c'est ça la vérité c'est-à-dire l'opinion se fait sur la base de interpellation yi ngeen interpeller laaju euh, tali bi la deuxième troisième vague on préfère perdre notre temps discuter de gens qui délirer. mais on va donc vous et d'ailleurs on non non non non non c'est-à-dire beaucoup na ci may d'habitude parce que dama japp nek affaire yi xawna ki ma nangou ñew tok mhm. bo setlo fi may dama parce que professionnel c'est-à-dire bu et bokk na ci tax lu demati parce que dama japp ne que amna yo yoo amul. c'est-à-dire yow man nga wax. motax bo waxé bu xawé dëng sax daf may metti parce que waruñu bayyi opinion bi ay ay ay ñoo xam xamuñu ci dara. yang ñi door di monsieur. non dooruma leen. limay may wax nii non non li may wax ni fepp la koy wax man dooruma kenn. non non non je suis pas dans ça. Ah. c'est-à-dire on a dépassé le stade où ay nit ko xam parce que ak il faut pas accepter que ñu ñuy abrutir wala di ñu def ay yëfi xale xam mhm. que un professeur en chimie ne peut pas discuter avec Balme euh, balme mhm. euh, koo xam ni euh, de de de de solution chimique. Mhm. ça yéen a au nom de liberté. de la presse la liberté de conscience mais c'est pas normal oui. votre dernier mot par rapport à ce dossier Ousmane Sonko terrorisme modification code pénal code de procédure pénale. mais li muy wax noonu mon dernier mot c'est que en tant que croyant je naa ni que dëgg du du mës a ça, c'est en tant que croyant. En tant que politique, je sais que l'avenir va nous donner raison parce qu'il y a des arguments qui, qui, qui, qui ont conforté sur une position. Et avec le temps, les gens vont comprendre. La preuve, bim ñëkke am am nañu à alxuraan nous ma xam man non mosu fa dem toppatoowul lieu après après après après l'opposant Ousmane Sonko daf de di à la yéen moi il m'empêche pas de dormir jamais alors pour le Covid 19 la dernière hmm. question troisième vague Eh, gis nañ ni ñu ngi koy tambalé annoncé Sénégal tambali titat yow gis na la sax ba ngay ñew tax nga sa masque yal nga sa produit antiseptique ça veut dire que ni ba tey ngi gëm jangoro yi mais monsieur le ministre troisième vague suñ ci eggee pour yow lan moy lan moko waral carrément ça va être une catastrophe bon li mais moko waral oui li ko waral pas moi je peux dire que c'est dû aussi à un relâchement ben mais de de deux gouvernement bi d'abord les tournées économiques. non non variant yi gis nañ ko. variant à dire bon il faut pas occulter la vérité. oui C'est à dire. Hmm. ben moment adina bi yep Non, en fait c'est comme si les gens sont fatigués des mesures xam nga événement mars restrictions, restriction liberté à mon. ak affaire les gens ont étouffé. Mais pas les autorités quand même. Non, pas les autorités. Mais, pas les autorités. les autorités. Non, non, non. Les autorités. Les autorités. Non, non, non. le Non, en fait, c'est que ce n'est pas particulier au Sénégal. Russie, il y a une deuxième, comme troisième vague. France, il y a une troisième vague. En fait, c'est mondial. Mais on doit donner le bon exemple nous aussi et on ah doit impulser aussi cette politique. yorin y non depuis le début pandémie moi moi je pense que quand même on a eu une situation beaucoup correcte par rapport aux autres quand même c'est acceptable malgré que ça a été à la surprise générale les gens n'étaient pas préparés il y a eu des dégâts hein, économiques sanitaires et trucs il y a eu des dégâts. ça a permis même de réorienter les politiques de l'État. Donc, est-ce qu'il n'est pas en avance par rapport à vous, ces élections, Abdoulaye Sarr non yow da nga da nga dafa bëgg. en tout cas maa ngi lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup monsieur le ministre ni nga accepté ñëw suñu invitation bi. merci beaucoup tey comme ni ñu ko waxee rek pour célébrer suñu première année. Uh-huh. nga accepté ñëw yow fajar gi. sa sa donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi maa ngi maa ngi lay maa ngi lay sant xaw ma woon Pape Sarr bon peut-être tey laa ko xam. Mm-hmm. mais bokk nga ci li tax ma ñëw parce que mm-hmm. yàgg naa le suivre depuis fi nga nekkoon. Mm-hmm. et je ne doute pas ce professionnalisme. et je n'en douterai pas man du moi quand c'est bleu je dis que c'est bleu quand c'est pas quand c'est quand c'est vert j'hésite pas que ça soit dans mon camp ou fenêtre parce que malheureusement je suis comme ça malheureusement pour moi peut-être heureusement pour les autres mais je suis comme ça et c'est bleu ici. ah et bleu. <laughs> Euh, monsieur le ministre chef de cabinet président de la république jëwriñ bu ñu dénkoon ak tourisme Mambaynia, Mbaye Niang la dalal ci invité politique fii ci Tok Tok Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen depuis 6h30 ci suba di leen le li des programme Dylan di leen jox dig 6h30 ci Benen Tok Tok Sénégal jaa ngeen jëf.